doomi aadama yoo xam ne bu ñu loroo mu diis sama kaw bu ñu amee fitna mu jafeñ sama kaw kon lépp loo xam ne dafa leen di fanqal fitna fanqal leen musiba ak bala dama cee war a xëy di ci gont yendu ci te nar cee fanoon tamit lépp luy gaañ ummatu muhammad man duma ko jéem bu fekkoon tey wóor na ma ne man sama xol bi sama dënn gi buñ ko génnoon toojate ko ummatu muhammad jëfandikoo ko daañu mucc man ma dee te ñi am jàmm billahi wallahi tallahi man danaa ko def askanu muhammad nañu am jàmm rek askanu muhammad nañu am jàmm lépp lu leen di andil jiixi jaaxa wala lépp lu leen di andil jafeñ wala lépp lu leen di andil fitna wala gaañ leen man danaa ko daw euh, duma ko def incha allah taala man ma loru moo ma dàqal ummatu muhammad daal di loru sallallahu alayhi wa sallam te ummatu muhammad doowul ñuy julli rek yonent bu nekk sa jamono ñu ci ñëw ci yow lañu bokk kon yahud yi tey ummatu muhammad lañu nasaraan yi tey ummatu muhammad lañu ñii jaamu buda ummatu muhammad lañu ñii jaamu xamb yi ñii jaamu xërëm yi charlatan yi féticheurs yi lépp luy dox ci kaw suuf si tey muy nit muy jinne muy kondorong muy kiyaaf yi muy njuuma rabu jéeri rabu géej lépp seen yonante mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente yàlla def ko yóol noonu rab rahmatan wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin waxul lil muslimin lil alamin lépp univers bi asamaan ak li mu ëmb suuf seg la mu ëmb jéeri bi géej ji Muhammad message am mooy na ñëpp am jàmm na yërmande yàlla wàcc rahmatun muhdaat kado yàlla ci yërmande gi mu jox doom mbindee fi mooy sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana doon julli ba branché wu ci alamul euh, ci àddina yi gën a kawe wala ci pays yàlla yi gën a kawe mu dégg jigéen doomam di jooy ci ndiggam mu koy kam-kamal ngir mën a mottali rakk bi ak Seydina Muhammad yonent daa dagg aaya bi rukku sujud sëlmal pour yaay boobu mën a wéeg doomam kon lii daloon na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yërmande boobu rek leen ëmbal waaye déedéet du moytu leneen du ragal leneen déedéet waa ñeme dee ragal dee déedéet lii dong la dajale ay doomi aadama te kenn ku nekk xelam mi ngi sikk sàkk mi ngi déngi-déngi naa nuyoo bu ma nuyoo naan naan bu ma naan naa lekk bu ma lekk ndax dinaa dellook jàmm ndax bu ma delloog jàmm kon may leen luy dalal seen xel peuple kenn du ko tiital askan kenn du ko tël badloo lu leen di may stabilité may leen dalak tal euh, lii la yàlla digut sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem na bay wax sahaaba yi laa tatamaaradu fa tamradu fa tamuutu même di feebar feebar lu bu leen ko jéem bu la feebar dalal neel feebar bi danga nga génn sama yaram danaa wér danaa dem danaa defaat dana sumb dana sotti danaa jéem dana antu danaa tàmbali te dina yegg nee na falaa tatamaaradu bu leen di feebar feebar même bu ngeen feebaree xeex leen feebar bi wala tatamaradu bu leen feebar feebarul bu ngeen ko defee fa tamradu da ngeen feebar de même bu geen feebarul da ngeen feebar te bu ngeen feebar lu ci tegu fa fa tamuutu benn ngeen dee xaqiqa wala ngeen dee ci maana kenn dootul génnati dootu leen doxati mbokk dootu leen demati néegu yàlla du ngeen am dal du ngeen am tal te bu baax du ngeen am aljanay àddina ndax aljanay àddina mooy xol bu neex mooy xel gu dal sa xol neexatul sa xel dalatul loo dese ci àddina rien yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla sàmm ñu eh, mala bi feeñ ci jamono tey ba kenn ku nekk tal boppam kenn ku nekk xinti njabootam kenn ku nekk seet ni muy muccee ak ni muy muccalee ni muy rawee ak nu muy rawlee am na askan am na xeet am na waaso am na giit dañoo xaaj mbindaa foonu yàlla ay équipe yi dafa am mbindaafoon bu nekk benn secteur bu mu nekk ci biir mbind yàlla gi incha allah maa ngi koy tàmbali ndànk-ndànk ñu bàyyi ma xel bi ci njëkk mooy sadiyaat sadiyu ci arab mooy ween sadiyaat mala yi am ween ci la nit bokk xar ak béy nag ak gëléem ci la bokk gaynde yi segg yi tene yi bukki yi muusi xaj yi tilli lépp lu am ween moom lañu ñu tuddee nit baahima la ci baahima yi waaye Seydina Muhammad salaasa nekk bi mu nekk nit moo may nit valeur bi or may yàlla ci Seydina Muhammad moo tax doomi aadama gën lépp lu dul doomi aadama xanaa yàlla lépp lu am ween dafay tëb bu tëbee dafay ëmb bu ëmbee dafay wasin bu wasinee dafay nampal moo tax doomi aadama ñu ko te xayawaan naatiq walla xayawaan daahik mala bii ree wala mala bii wax waaye mala la comme mala yi kii benn groupe la yii dafay lekk ndawal kese ni gaynde ni léopard ni guépard ni tigre am na yoo xam ne ñoom li ñuy lekk mooy ñax rek naka fas naka mbaam naka ñay ay léebéer ay koj béer ay njamala doomi aadama nag mooy benn mala goo xam ne ni muy lekkee rabu ndox noonu lay lekkee rabu jéeri ni muy lekkee lu ñaxe noonu lay lekkee lu ndawale moo tax mala bu yàlla bind doomu aadama moo ci gën a danger tooke bi nekk ci yaramu ni nekku ci tooke yi benn mala kon bu demee ne ba doomu aadama am am beneen tooke bu ko mun a faagaagal tooke boobu lan la ko lu lekk nit danga yokk am na ay cër ci biir doomi aadama lu mu laal moo gën a bon granox te mi ngi ci doomi aadama muy ay caslaayam kon benn group baa nga ne mooy saddiyaat mooy yi am ween dañuy tëbante dañuy ëmb dañuy wasin dañuy nampal am beneen groupe bu ñu tuddee euh, tuyuur mooy njanaaw yi lépp lu am dunq dana tëb waaye bu tëbee day nen nenam def koy bóof soit mu naaw soit mu ñàkk naaw comme am na dunq rek tuyur lañ koy tuddee ganaar du naaw waaye ci la bokk day nen day boof day tostan autriche mooy jàmbu jóob autriche kono sogoti mooy picc bu mag boobu te du naaw mooy autriche waaw moo munta naaw day daw rek waaye day nen day boof kon yi am dunq yëpp buñ tëbantee dañuy nen dañuy bóof seen nen mu toj génn ay cuuj yooyu tamit seen euh, ruwaayom bopp lañ ñetteel bi mooy li ñu tuddee zawahif moo yiy te am ay écailles am lu ñagas comme mbomb di am geen yooyu danañu tëbante waaye bu ñu tëbantee ba ëmb ñoom dañuy nen waaye seen nen duñ ko boof dañuy gas ko lu mel ni mbëtt lu mel ni bar mboose lu mel ni sindax lu mel ni yelt lu mel ni nduumaar lu mel ni taw lu mel ni mbonaat lu mel ni kakataar yépp bu ñu tëbantee ba ëmb dañuy nen waaye seen nen dañuy gas ko bu période bu dikkee mu tàng mu toj mu génn doonaan bindeef boobu ñeenteel bi la ñu tuddee xacharaat mooy insectes yi yooyu itam dañuy nen li ci ëpp insectes yi jargoñ ci la bokk weñ yi di naaw ci la bokk soccant ci la bokk melentaan yi ci la bokk sànqaleñ ci la bokk xorondom ci la bokk am na yeneen yu ñuy tuddee barama iya mooy luy dund ci dund ci jéeri mbott ci la bokk moom lañ gën a miin ñun njël beenam ndox la mujjam jéeri la moom lañ tuddee barama iyaat luy boole jéeri ak géej am na beneen ñi koy tuddee fitriyaat du garab te du mala moo lu mel ni champion am na beneen yi ñuy li tax ñu toog tey nag mooy ñetti yi mooy li ñu tuddee bactérie ak li ñu tuddee euh, virus ak li ñuy tuddee parasite bactérie àddina bi noonu la ko tuddee kenn ku nekk noo koy prononcé ñi ne bactérie ñi ne bactéria am na yu ciy jëriñ am na yu ciy loraate yi ciy jëriñ mooy yi nekk ci ron gàncax yi di nàmp lekk bi ci suuf si bu deeyee gàncax bi lekk ko moom te mu mel ni engrais boo jëlee reenu dugub bi da nga ci gis ay tomb tomb mel ni ay per yu ndaw ñoom ñooy dajaloo di dund li ci biir suuf si bu ñu dee garab bi dundee leen mooy tomb tomb yi ngay gis ci reen kooku xeeti bactérie la Louis Pasteur di kilifa gu mag ci France savant la moom la tuddee institut Pasteur bi nekk ci weti hôpital la Dantec ci 1850 moo njëkk a découvrir ndeke bactérie mooy dugg ci meew soppi ko muy soow lépp lu ënn cere bi ënn na bactérie bii ënn loo moo koy def xamira ceeb bi forox nag ndawal bi mu nëb na kenn mënatu ko lekk bactérie moo koy def te mu ngi ko gis ci 1850 moom lii Pasteur français la ci ginnaaw loolu 1880 beneen savant daal di feeñ ci Allemagne muy Albert ko ab lu ñu tuddee ŋokobe dem ba doo mën a tàllal say cër yëpp dafay banque comme arc ndeke parachute moo koy def moom it am na yu baax waaye am na yu bon bi tax ñu daje tey nag mooy virus waaw mooy virus àddina bi virus lañu koy tuddee xeet la balaa ñu koy tudd seetal bactérie bi ñu doon tudd appareil bii moom moo ko mën a gis appareil bi moom moo ko mën a dafa am ay bët lii la ñu tuddee microscope ci anglais wala ci français microscope wala ci arab al mijhar boo yurandoo fi mun nga ko sewal mun nga ko yaatal boo ko sewalee bo boo ci tegee ñey dafay tuuti mel ni melentaan boo ko yaatalee boo jëlal melentaan teg ko daf koy ngandal mel ni ñey moom la ñu tuddee mu qaar ak mu hadda kon lii doonul doomi aadama buy sànni ay kàddoom ci mbedd déedéet déedéet lii dama ko jàng dama ko xam maa ngi jéggalu ci wax bi euh, lay la danga ko dajale danga ko yaatal dana mel ni këll ci nuux dana mel ni leefaaj ci tàllalu waaye dana mel ni leket ci diir boo ko defee ni lu mbir mag boo ci degoon ñay dana ko tuutal ba mel ni melentaan nga xool ni liñ ci bëggee boo ci tegoon gëléem mun na ko ndawal ba mel ni melenkaan waaye boo ci tegoon melentaan mun na ko ngàndal ba nga foog ne lii ñaay la nga gis ay butitu melentaan gis liquide bi ni mu dawee ci biir yaramam gis ay bëtam gis gémmiñam gis fi muy génnee sobe di kër suufam ay bët la am bët dafay réyal téeméeri yoon yii bët dafay réyal junni yoon boo ko taalee contact baa ngi fii mun nga ko yégal euh, mun nga ko wàcce mun nga ko yéegal mun nga ko wàcce mun na def ni mun na def ni mun na yéeg mun na wàcc mun nga ko toxuloo nu mu la neexee te bi boo ci tegee bactéria bactérie fii lañ koy gisee waaye boo jëloon vingt cinq mille ñaar fukki junni ak juróom ci bactérie nga tëral leen mi ngi toll ak benn pouce pouce P O U C E te benn pouce deux virgule cinquante quatre centimètres nga teg ci ñaar fukki junne ak juróom ci bactérie guddaayam du mën a mot loolu kon li naka la ko bët kase di gisee xam-xam rek moo ko mën a gis ci lii ngay seet gis ko bactérie ñaar fukki junni bactérie vingt cinq mille ñaar fukki junni bactérie ak juróom boo ko rangalee guddaay bi du benn buus lay doon benn pouce arab ne buus buusa benn buusa boo ko doon seet suñu centimètre tey deux virgule cinquante quatre centimètres lay doon lii tuuti na de te pour nga gis virus appareil bi dafay ngandal dix mille fois électronique lay doon donc dafay ngandal dix mille fois parfois ba quatre-vingt mille fois nga soo gis mala boobu kon lii lan la mbindaafoon la ci mbindaafoon yàlla moo tax aaya alquran daal di dëgguwaat wa maa yaalamu junuuda rabbika illaahu yàlla rek moo xam ay mbindeefam ni mu tuutee kenn mënul imaginer lii lan la ñoom tamit virus yi dañoo am askan am waaso am xeet am giit lii ngeen di jëlee ni moo nekk ci biir léegi boo jëlee appareil bi ana sa appareil boo composé léegi allo Sydney foofu fan la Sagne Bambara la fan nga nekk maa ngi Australie ci benn seconde bi nga dégg ko virus moo koy yóbbu li muy daw bi nekk ci biir cobalt rek mi ngi daw 4720 mètres lay dagg ci benn seconde kon boo ne allo Kaolack 2 secondes pour mu dugg Kaolack te Kaolack saañ 12 kilomètres boo ne allo Rio de Janeiro fan la Brésil foo may woo ni Moscou la seetal ca Amérique latine fii ca Moscou au nord ci benn seconde lay daw virus moo nekk ci biir télé baa ngi ni nga joxoñ ko mu daw génn dóor ko mu takk nga bosaat ko mu dóor yëkkati baat bi nga bosaat dóor mu yaatal écran bi nga bosaat dóor écran bi gën a fatt wala mu gën a leer nga dóoraat mu fay ko nga tëdd ci kawlal bi nga tëdd ci kawlal bi néeg bi tàng nga jël commande bi nekkoon ni takk kilim bi takk dis 19 yaa ngi bës tëdd sa kawlal virus bi mu ngi génn di dugg di def li nga bëgg jigéen bi ñëw ñu ne ecole lañ koy defal jël wiris bi dóor ci biiram mu génne doom bi x la wala y la benn doom la wala ñaari doom la ay góor la wala ay jigéen la bés sàngam weer sàngam la war a ñëw àddina jox la bés bi jox la heure bi virus mooy def li virus yi kon am na yu baax virus yi am na yu bon virus bii nag lëmbee àddina ni te ko defar de waa jaragul ñuy jiiñante bu ñu nekk ci biir gaal ëmb bi yaa ko andi ëmb bi andiwuma ko bàyyi leen ba yegg ci tefes bi waaye biir gaal bu ngeen fa xeexee eh, du jur jàmm de bàyyil ba yegg ci tefes bi fii mu nekk ñoom xam nañu kan moo def lii ñoom xam nañ nuñ doon def ba lii feeñ dañoo dem ba de ci seen biir laboratoire léegi boo jëlee fas nga boole ko mbaam mu jox la berkel berkelle yàlla binduloon berkelle def defi doomu aadama moo feeñal mala boobu wal xayla wal bi wal biraala wal xamira nga jël kéwél boole ko kooba mu jox la koj biir du kéwél du kooba nga jël mbaam xux boole ko mbaam àll mu jox la ngir je du mbaam xux du mbaam àll ban nga ciy lekk léegi tàmbali nañu di boole xaj ak xar di boole xaj ak béy waa li muy juri lan lay doon ndax lii du lor ndax lii du gaañ doomi aadama di wëlbati mbindeenu yàlla zahara al fasad fi l wallahi wallahi wallahi lii viris bi ci biir laboratoire la rëcce waaye nag buur bu néewee boppi baadool la ñuy xotti mi ngi nii ñoom ñoo ko def pour caché yi ñoo koy fay ay jullit lëmm mun a tëj kaaba gi mën a tëj rawda bu Seydina Muhammad zawaayaay ci àddina bi yëpp tëj ko te loolu lislaam xamu ko lislaam bëgg ko lislaam attanu ko dangay dem ba tey jii day mel ni gaz lañ la nandal dangay dem tey mel ni ñàngoor tookeem lañ jël sos la ko nga xam nga ne lislaam tey biit bu rëcc bu mag rëcc na ko pas-pasam kaaba gi ñëpp yaakaar bu ñu nee bay pomp kaaba gi ne dañ fay rey jàngoo lu ñu deseeti ci ngëm lu ñu deseeti ci ngëm bu zamaan yi fa ñu tëdd ci bàmmeel ñu koy tëj ràpp ne micro ba mi ngi fa kon ña fa nekk lan lañti waaye boo leen wuyuwul ci seeni solo ñu ne intégriste la dafa bëgg a sànk ummatu muhammad dafa dëgër bopp dafa contre nguur nga def lu lay may jàmm nga jàll sa entourage nga bañ leen a lor lii dong la de waaye pour pat pati wala am xel ñaar ci yàlla wallahi lazi laa ilaha illa hu nekku sama dënd waaye balaa ñu may diaboliser di ma boole fu ma bokkul suba ba léegi renseignement yaa ngi naan moom dafa dëgër bopp de dina sànq réew mi man ma sànq man balaa may am sama néegi bopp hôpital laa tabax def ci cent onze million kenn du fay ba may dem ziyaare ba ambulance bi sama doom a ko jiital ma topp bu ñu gisee lu ñu xamul ñu jël ko yóbbu ko suñu hôpital yi école lu passé juróomi téeméeri nit ñëpp di jàng ñaata at kenn du fay man maay fay kooku dina def luy gaañu réew centre social ñëpp di jàng togg foot ñaw kenn du fay kooku dina def luy gaañu réew waaye nag buñ ne kenn ku nekk reyal sa noon teel sa xarit nga denc sa xarit la waaye noonu keneen la yal na yàlla dimbalañ virus bii li tax ma ciy wax am na ñuy jëlaat wax bi di ko jéem a diriger déedéet lii dama ci def étude ba bind ci téere bind naa ci téere da ngeen ko jot du yàgg incha allah bu ma yàlla maye ma mool ko waaw virus bi corona bi li muy tekki mooy dafa am lu ñu tuddee couronne buur yi ñoo koy teg seen bopp day mel ni lu am ay béjjën comme buur bu jigéen bi nekk Angleterre ñu ko tuddee la reine Élisabeth anglais naan ko Queen Elizabeth wala Elizabeth II comme mbaxana bi muy teg ci boppam couronne boobu dafa am lu mel ni ay béjjén kuron làkk la askan mu ne dafa am noo ko tuddee ñii ne couronne comme suukar wolof ne suukar arab ne sukkar anglais ne suga français ne sucre nii la dafa am tur yoo xam ne àddina bi yëpp ñoo ko bokk tey jii boo ne xorom ku dul olof du ko xam boo ne lamdam ku dul tukulóor du ko xam boo ne koro ku dul bambara du ko xam boo ne sel ku dul français du ko xam boo ne selt ku déggul anglais du ko xam waaye boo ne chlorite sodium ñëpp xam ko parce que mooy ismul ilmi ñëpp ko xam ñépp tur boobu lañ ko xamee ci biir xam-xam corona bi tamit baat bi noonu ñu ngi ne corona ñu ne corona ñu ne corona waaye lépp li muy li muy junj mooy lu am ay pointe comme ay béjjën moom dafa rond mais dafa am ay béjjën béjjën yooyu ñett façon béjjën laa ci gis agum waaye du jomb mu am yeneen benn béjjën bi dafa mel ni comme njoxu ñay fi fi muy jeexee dafa am bën bën euh, mu tàppandaar léegi moom buy lekk boobu lay lekk bu lekkee ne ba doylu buy buusu bi muy buusoo dafa sew comme boti comme pusoni te poson lay sotti bu demee ba yëg lu koy gaañ si am na beneen bit beneen liquide lay tuuroo dugg ci biir te liquide boo dafay fàtt nit kon kay dee dikk na bon bu nit di nokki dafa am lu ñu tuddee saxiiq ak zafir mooy nokki ak noyyi nokki ak noyyi du benn nokki mooy xëcc yi mooy génne ju ngelaw boo xëcc buñ ko xaajee téeméeri bërëb vingt pour cent yëpp oxygène la booy nokki ju ngelaw bu dugg vingt pour cent yëpp oxygène la soixante dix pour cent yi nitrogène la zéro virgule zéro quatre pour cent yi carbone la un pour cent bi des mooy guus guus bi boo jegeñee géej sa ngelaw gën a dugus euh, guus boo soree géej nekk ci gànnaar bi sa ngelaw ñàkk gën a guus waaye nitrogène bi lii dugg mooy génnaat 79 moo dugg 79 mooy génn moom dafa gunge oxygène bi daal di ko encadré nekk garde corps am mu def liggéeyam ànd ak globule rouge yi dem ci yaram bi moom mu génnaat bàyyi ko foofu la ndax oxygène du tàkk mais dafay may doole luy tàkk moom mu gunge ko ba du gaañ yaram bi bu demee ba placé ay pion moom mu génnaat bàyyi ko foofu waaye booy nokk lii dugg carbone bi 0 virgule 04 pour cent mooy dugg waaye lii génn moo bëri mooy 4 pour cent mooy génn léegi nag guus guus boobale moom ci lay làqatu dugg mootu ñu naan na nit ñi sore waaloo tuuti waaye moytu ko he yàlla rek moytu ko yàlla rek bu ñu waxee foog ñu topp leen waaye moytu ko léegi man laal naa lii yàlla tere bu ma ko yoree boo ko laalee nga jël ko ñëw naa ci banque bi dugal sama loxo génne sama carte boobu nu mu tudd cher gab carte gab bi nga laal ko ñu ngi sa loxo nga dugal gab bi génne keneen ñoo dugal gabam taqal taqaloon na ak carte ko mu dugal ci boson yóbbaale na ko lii noo ciy mucc ñoo nga ci ascenseur bi bës nga bouton mu yóbbu la troisième étage keneen bës ko mu yóbbu ko dixième étage jël na ko kon li fi nekk mooy delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala xam ne yàlla rek mooy almutakabbir ngand du kenn ku dul yàll tey Amérique lan la am ci ay cas ay treize mille léegi mu yegg quatorze mille États-Unis dem ba seen président waroon a dem campagne Colorado ak Nevada def ko fomm mu gisee kilifa bu jóge Brésil kooku ñibbi ñu ne am na ko mu ne moo amoo ko de waaye nañ ko seet lu ñu lay seete comme am xam nga ne amoo mooy président bu Amérique bi nii seetal Malaisie réew yi raw ci njàngale ci àddina bi ñeent jiitu ci la bokk premier ministre bi Mohamed Mahathir daf ko dal fu ko amee fu ko amee buur bu Monaco prince bu Monaco Albert laal na ko fu mu ko amee Union européenne ki topp ci kilifa bi am na ko fu mu ko jëlee waa lii nag buy tàbbi ci buur yi ñi nekk ci biir néeg yi seen lépp mot waaw ñi buñ ci muccul ñun ñu nekk ci der yi ci tap yi nekk ci marché yi fu ñu ciy mucc kon fenn mooy nañ dellu ci borom bi subhaanahu wa ñu tuub ñu jéggalu ñu balu yàlla nekk ko juum nañu tooñ nañu yàlla lii ñu teg attañu ko laa xawla wala quwwata illa billah pexe du jëriñ kàttan du fës bu dul lu yàlla ànd buñ ko defee ñu am jaam waaye buñ ko deful yàlla li mu mën a dóoree jaam te jaam du ci mën a teg bët ay million ngi million la wa maa yaalamu junuuda rabbika illaahu lii dañ ko doon defar ci laboratoire seet yeneen di yéem a def ay découverte léegi avion yi naaw nga xam ne ki koy dawal ci suuf lay toog naka la ñuy defee lu gën a gaaloo ba mu mën a yóbbu nit ndax am ngeen ay drone yaa ngi toog ni drone baa ngi tiim ni saañ yaa ngi toog fii di ko di ko di doxal mu jëlale li nekk ci kaw saañ yëpp te yaa ngi ci biir néeg fii li koy doxal est-ce que bu ëllëgee duñ mën a defloo ci avion yi avion de guerre yi mu dem bombarde ñëw sa doomi réew du dee portable yi nga toog fii daal di composé na nit bonjour nga def BON mu daal di dóor ci appareil bi fële Paris BON bon bonjour ju O U R loolu la de bonjour nga dóor fi bonjour léegi mu génne Paris bonjour li yóbbu li virus la seetal gaawaay bi cobalt lépp lu lépp lu ci àddina bi moom la lu bula loo gis 80 pour cent yi cobalt la moo tax ñu naan suuf si la planète bleue al kawkabul azraq li may wax nii lii yóbbu baat bi rajo yi di ko dégg mooy électro onde magnétique yóbbu sama baat bi bu xuuree ñu xam ko bu ma muuñee ñu xam ko bu ma saqatee ñu xam ko bu ma tisalee ñu xam ko moo koy yóbbu nga toog fii tey sëñ bi de lu weex la sol maa ngi nii toog nii New ko di ko seet mu ngi ni tàllal na baaraanam baaraanam weer bi de nii la mel lii yóbbu image boobu mooy électro onde lumineuse te moom cobalt moo nekk ci biir te cobalt bi virus mooy liggéey ci biir kon li gaawan kenn xamu kon li fi nekk mooy nañu tuub nañu tuub àddina gi bonug waaye bon yi ko jeexal waaye baaxu bonug waay baax yi mooy yàq àddina ñi war a wax ñi warut a wax ñépp a ngi ŋawti ŋawti wax lan moo la jooyloo ki ma warut a wax moo ma wax ki ma waroon a wax waxuma wax nañ ma fuñ ma warut a waxee wax nañ ma nuñ ma warut a waxee wax nañ ma te jotaguma wax nañ ma ba ma paase. ñëpp tey ñii ñu ngi politiser ñii ñu ngi woote bugg feeñ jëlal kaamil bi nangam jëlal xobi daqaar bi nangam daanul ci biir géej gi siin am na géej de Chine ca penkoom fa nekk Japon digganteem ak Japon mer jaune fa la nekk boo wàccee gànnaaram fa la ñoom Indonésie nekk ñoom Philippines fa la nekk ñoom Malaisie fa la ñu nekk Singapour fa la nekk Sumatra fa la nekk boo ñëwee ci sowam tuuti ay Birmanie fa la ñu nekk ay Laos Laos ak Lagos du benn ndax dii nga defa gaaw sëñ bi neen Lagos fa la nekk de Lagos mooy ex capitale bu Nigéria kooku L A G O S la Lagos bale Laos réew la LAOS la mu ngi ceeti Birmanie di nga defa yomb léegi dégg nga li sëñ bi yow déedéet li ma wax man xam naa ko daanuma ci sareet <laughs> maa ngi jéggal ngi jéggal damay kaf ak yéen ngeen mën a récupéré wax bi dem na maa ngi jéggal aywa euh, yu ni mel Chine rëyaay bi mu rëy da nga boole Sénégal teg ci Mauritanie teg ci Mali teg ci Côte d'Ivoire teg ci Guinée Chine moo leen gën a rey waaye euh, mbokk yi yont yàlla Moussa ba mu jógee Égypte di dem Israël waa Israël dañoo dajaloo ne kii ñoo juddu jéeri la yahud la waaye judduwul fii bu ñëwee rek dana jël nguuri Israël te kon ñu ñàkk fayda ñu dem ci benn nitu yàlla bu ñu dee Balaam bun Baura ne ko yow am nga lijaa ba ñaanal yàlla alag leen bu ñu yegsi mu daal di bañ ne aw yonantu yàlla nu ma koy ñaanale ñu topp ko di ko kalli kalli di ko jéebaane alal di ko jéebaane ay teraanga be mu nangu yéeg ci kaw daju ba tiim Moussa ak bani Israël ñu ngi ne la jóge Égypte di ñëw mu commencé di leen móolu yàlla soppi la mel ni ventilateur bu ñu dëpp ci ginnaaw gi la waaye du upp ci kanam bu bëggee ne yàlla def leen mu ne yàlla def ñu yàlla wàcceel ci ñoom mu ne yàlla wàcceel ci ñoom ñu ne ko def nga musiba di li ngay wax yëpp jëmu ci ñoom ci ñun la jëm mu xam ne alkul mu nekkoon pexe moo def mu ne kenn ku baax ci ñoom bu njaaloo rek yàlla alag leen jël leen seen doom yi jigéen yi ngeen solal leen malaan yi gën a rafet na oyof ngeen jox leen ay palaat ñu teg ci ay lekk jaayi foofu dañoo xiif kenn ci ñoom bu njaaloo rek ci ñu baax ñi wax waxuma ñu bon ñi de kenn ci ñu baax ñi bu njaaloo rek seen àddina tas ci la ñu demee di jaay di sàgganu di jaay di sàgganu kenn ci ñu baax ñu fa nekkoon njaaloo kenn benn bés bi yàlla wàcce mbas seen kaw comme feebar bi ñaar fukki junni nit ak ñeent ñoo de waaw naka nag bu ñu demee ba tey dañuy dañuy wut ay carte pour ay góor jigéen ay état taxaw ne dañuy daganal góor jigéen góor ak góor mën nañu ànd jigéen ak jigéen mën nañu ànd buñ ko nëbb na ko état yi si fu ñu jëm réew yi ko am ci Europe ni ngay paasee di seetaan làmb ni ngay paase di seetaan cinéma da nga dugg ci ay biram noonu ngay duggee seetaan ay nit ñuy sëy fukki góor ci benn jigéen fukki jigéen ci benn góor ñuy reetaan di def la nekk waa jàmm dana am foofu ba bi xewee ci banni Israël Moussa ne yàlla ah li xanaa injustice la kii def simpi ko yow yàlla wan ñu ko ñu rey ko yàlla ne kon ma nekk naa fekk di te man tere naa leen naa bu ma kalaamee waa ji ngeen rey ko kon li ma leen tere woon ne bu leen jëwante bu leen ayibalante na ngeen suturalante kon man ma xaawi seen mu ne ko waaye ne ñi nga reyaale te bokkuñ ci nag yàlla ne ko dégg na ko fii Moussa tëddee noonu ndekk ci weti néegu melentaan la benn melentaan génn jekk ko ne ko kuuc Moussa jóg ni xool daal di raatale melentaan yëpp ñu dee yàlla na ko bi ci matt mu a woon ci yem mu xam ne yàlla tontu na ko kon lii ñuy dund tey dégg ngeen junjo bi de tey guerre amul fenn ci àdduna bi lu ci monde islamique ki yore fetal Muhammad la ci ki mu jëm Muhammad la ki yore fetal Ali la ci ki mu jëm Ali la seetal nord Mali ca Kidal ca Tombouctou ca gaaw ña fay reyante ñan lañ ay jullit kese ku leen di jaay ngànnaay nasaraani nañu jël seen uranium nañu jël seen bauxite or bi diamant bi pétrole bi gaz bi nañ ko jël jox leen ay ngànnaay ñu faat seen bopp comme amuñ ful yóbbu nañ alal bi waa ñu ngi koy fajoo de léegi am na ay réew ci Europe tàmbali nañoo lakk seeni néew yàlla bu mu yegg si fi seetal li ni mu neexee woon tey seetal am na ku nekk côté Benghazi Khalifa Haftar ñoom ñoo koy jox ngànnaay muy rey ay mbokkam ñi nekk Tripoli di rey kële ay jullit ñooy reyante ci biir Libi talatuñ dara boo demee somali jël oto def ci bomb ñoo taxaw ci marché rey ay innocent jullit yee koy def boo demee Yaman ñaata at ay xale ay jigéen ay marché bomb nañ lépp alal gi ñëw waroon a tabaxee ay usine ay juma ay jàkk ay daara ay hôpitaux yëpp jënd nañ ko ay ngànnaay ay avion ay char de combat ay hound avion yi nga xam ne dañuy dem seen bopp noonu ay missile ay avion Jaguar ay MiG ay Mirage Super Standard Fouga Phantom Sukhoi ñu ngi jënd di bombante rek kan moo koy def foo xam ne ñun fa la ñu yaakaar ne bu ñuy julli fa la ñuy jublu demal Palestine bés bu nekk yahud yaa ngi rey jullit dem ba di leen fekk ci biir Jérusalem ci masjidul Aqsa fi yonent bi demee woon asamaan di leen sotti lacrymogène benn jullit doo wax Suuriya naka noonu ñu ngi dee ñaataat be bàmmeelu bilaal bomb daan na ci bilaal bun rabaax lan moo desati ci lislaam Irak dafay tëmb ci kaw pétrole tey màbb nañu Irak am na àlluwa yu nekkoon dëkk mu ñu tuddee Muusil ak Ninawa fii bàmmeel yonte yàlla Yunus a nekk àlluwa yoo xam ne ñoo jëkk yonte yàlla Ibrahim ca yoon tey àlluwa yëpp màbb nañ la yi ñu sàcc ko yóbbu ko seen musée Iran ñu embargo ko Afghanistan rey nañ ba mënatuñoo rey Myanmar rey nañ ba mënatuñoo rey Igor ca Chine ñu ngi rey bi xamatuñu lu ñuy def lépp jullit yaa ne tekk kenn waxul kenn waxul ñax bu wow na tàmbal na lakk bu tooy bi te Seydina Muhammad nee na sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla tere ma fekke ñu ne ko lan la mu ne juróom a ngi ñëw ku mu fi fekk juróom yi dal la ñu ne ko mooy lan mu ne lam tazharil fahisha fii qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimul awja lam takun fi aslafihim nee na bu ñu demee benn lu araam njaalo sàcc fen luubal wuruj wor na baax la ne ñëpp yàqule nee na bu ñu demee ba tollu foofa la yàlla dina wàccee ay awja ay métit ay feebar ay jàngoro ay songoŋ ay ragg ay rafli xiif mar boo xam ne musta nekk ci ñi leen jiitoon li ngeen di xale yëpp ak li ngeen di mag yëpp liy xew ci eh, ci jamono yi kenn mosu ko gis kenn mosu ko di guerre mondiale xew na fi 14 18 melul nii 39 40 45 xew na fi lii xewul yàlla andi na ko ci ñun kon nañu jël suñuy précaution bàyyi fanatisme bi bàyyi eh, kàddu yi nga xam ne kenn xamul fan la jëm lii du mbiru solution bi jabaraan moo ko yore déedéet lii du tariyaax moo ko yore ay kawar ci nangam yorewul lii ay pelem seex yàbbi yorul lii nuuru ci géej bi tàll sa benn doo lii weñ bi boo buggee mu jag jox ko tëgg bi der bi boo buggee mu jag jox ko uude bi bant bi boo buggee mu jag jox ko lawbe bi sëru rabal bi boo buggee mu jag wëñ bi jox ko maabo bi alquran bi jox ko bi ko xam jàngoro bi jox ko bi lii mbiru docteur la nañ ko bàyyee docteur yi dimbale leen ci ñaan dimbale leen ci alal fital leen may leen xel te ŋawti ngawti bi du solution ci lii de li ñuy tudd ci rajo bi yàlla xam ndax lool la wala du loolu waaye nañ ñaan yàlla li ñuy bàkkee bu mu yegsi kilifa OMS organisation mondiale de la santé nee nañu Afrique bu ngeen yeewul li nekk ci biti dana yegsi de te bu yegsee yéen da ngeen mel ni suy bale yàlla tere du xam ngeen suy bale waaw mooy xeeti puuta boo xam ne boo ko defee ni jur yi dañuy di dee rek dañuy daan di dee rek kon dégg nañ ko coronavirus bi moom mi ngi tëdd ci biir cellule li lii dajaloo doon bindeef moom fa lay tëdd doomi aadama bu nekk mi nga am mille million million selil la muy man mu yéen kenn ku nekk mille million million selil la selil la arab di dee xaliya alf million million xaliya benn seconde bu nekk cent vingt cinq mille dana dee li may wax ni bu génn wax doo dafay dee bu génn wax dafay dee bu may nelaw nag bu làmmiñ dootul dee booy xool benn xool boo def benn xaliya bët dee na benn xool boo xool dee na seen ba ngeen di jóge Kaolack essence bi ngeen def seen oto wàññeeku na xanaa ngeen def ci beneen essence waaye bi ngeen ci defoon am na lu ci jóge kon nit ki dafay consommer seconde bu nekk cent vingt cinq mille xal xaliya dana ko consommer yow ne ngay consommer beneen judduwul bi judd am na ku nekk ci bi di ko lekk moom du yem ci ndawal du yem ci deret du yem ci globules rouges yi du yem ci globules blancs yi du yem ci plaquettes yi moom mi ngi dem tëdd ba ci biir cellule bi lii dee li ko waroon a wuutu mu lekk loola la li deewagul mu rey ko ak kii bu ko yàlla yebalee ci ay nit fu kon solution bi du dara kenn ku nekk ci ñun lu guddi lëndëm dugal ci ndox mu sedd bi nga laal ko ñëw ci lëndëm bi yëkkati sa loxo jàkkaloo xibla mi allahu akbar yow yàlla irfa maqtaka wa ghadabaka anna wala taaruz na maa faala sufaaw min na wala taaruz na bi maa faala sufaaw min na yàlla irfa yëkkatil maqtaka sa sànj warada ba ak sa mer an naa ci ñun wala taaruz na bul ñu jàppee bi maa faala sufaaw min na nga teg ci bisimilahi shaafi bisimilahi kaafi bisimilahi muaafi bisimilahi xayril asmaai bisimilahi rabbil ardi wa samaai bisimilahi lazi laa yaduru maa ismi shay'un fil ardi wala fi samaai wa samina alim auzu bi kalimatillahi taamati min sharri ma xalaq wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim lii da laa ci xam li ñu wax set gi nañ ko def waaye pour ne moytu na la ci musal ah déedéet wax ju bëri ñu bàyyi ko euh, ñi ci war a wax wax ci ñi war ci wax ñu daal noppi